bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman waaji muusa bul fàtte waaja fa tuuba moo la tee faatu moo la tee yalwaani waaji muusa bul fàtte waaja fa tuuba moo la tee faatu moo la tee yalwaani ngala bul fàtte sayxu ci duniyaa bu la fàddoo saxal cëlem santaane naka sob xol ni jàkk ndeem raw na say gët mi ngi lay gis ci deewu leen seetaani boo ko fàttee mu fàtte fàtte lu say mbir war nga foo tollu far ko def waxtaani xalamal yàlla mbër mënaa fas askurukum fi suurati l ahwaani xalamaatal la jëkk fattabixooni yuhbibukum fi suurati l ximraani wa ulil amri minkum boo ko réeree tee nga dem yar fi suurati niswaani fattaqoo wabtagoo ilayhi l wasiila bala dem ci yàlla am kerkeraani Seyxuna Bamba moo fi wuutu yonnen te misaal mi lu wér la fil quraani xulafaa uy yonen ba ngir ma ñu xàlloon yaa ko dekkal yor kaamilub Usmaani yaa fi daa way yonen ba yaa donn kaabun yaa fi loo buusayri ak Hassaani yaa fi daa niit ci gaa yu baax yi fi daa ñëw yaa fi yor mbooti ahmadul xadnaani yaa di malik di saafi yu di xanbal yaa di baayub xanifatun nuxmaani bala yàllay yabal si fii xaama sharxin booba luy yaa di seen sultaani donne ngay mbooti gaa yu baax yi fi nekkoon yaay donay sayxu tiijaani donne ngay mbooti kunti yoo ki xalifa yaay doonay Abdul Xaadiril Jiilaani donne ngay mboot ca xutbaam dil ya daali donne ngay mboot ci naari waa daymaani donne ngay mboot ci mbàkk ak yaa di lampu bii ak suudaani yaa di waamew ngëneeli yàlla yu dul kula taatan fardu yi ca kaw saranaani yaa di sun mu jëm ci yàlla siraatan mustaqiman ku soobu teeru jinaani yaa di sun suukar ko mos ni aajana ndollan koo mosal dootu muslu nooraani yaa dundal ruuyi yaanu suuxat ndoxum gëm bu du kon yow kuy dee di dem niiraani yaa ragal ràjji xol yi yaa nu teree bew bu du kon yow noo ngi yam nasraani yaa fi seexal kàngam yi ñépp a ngi lay roy yow ñu tuubloo abdul xafoor mbaaxaani yaa nu wammat wammat murit yi nu àndal yaa di mbër yaa nu tàggaleeg saytaane yaa nu tàllal sa ténq sotti nu say may yaa di géejug ngëneel gi dun rootaani yaa du yal sayxu ibra faati say may yaa ko jiital muy xutbu fi diiwaani yaa defal sayxu anta barke budul dañ jox ko daaru ak gaawaani yaa defal sayxu ahmadu bnu saxiidin gëm gu ànd ak dëggal ba am ridwaani yaa defal sayxu ibra lamp budul fay yaa ko wan yoon wa jëm ca dex ga mu naani yaa saxal say xob du daaru xalimin jox ma bootam kuy jàng fil quraani yaa saxal say xob du daaru xalimin jox ko mbootam kuy jàng fil quraani yaa jafal lampi diine gaa fa tuubaa sanc daaru salaami ak man gile daaru salaami ak gile tuubaa ku fi faatooti dal di tab jinaani yaa seexal te may ma fat ba may way yaa ma dox di mbal di saf sambaani yaa ma gàddu ñaggitaa ka yanuy tar yaa gàddu mbal ka tey sammaani bamba yow yaa di ceebo waaju la bay bu la góobee këram ga duñ xaaraani jërëjëf sayxu bamba yaa mata àndal kulaam dootu ñàkk bay ñeetaani bamba yaa jar di xëy di gontu ba far dee yaa defal yàlla lépp lum santaane yaa jëfal mustapha la xew si ya tànnoon yaa di xëyrul xadiimi fi diiwaani yow gërëm loo nga yàlla teg ca gërëm loo ngën ji yonnen wallaahi yow yaay war na noo dellu sant xayrul xadiimi sayxunaa ahmadoonu fal filxiini baay daam ahmadoonu may lanu tànnoon moonu yóbbal nga yu taaru ci diine sunu waa ji ku seetlu gaaya ca baawoon war a jóg sant yàlla tey def yooni danu daakaas baraay di sotti yóbbal tey ku jóg gis fu dàq kër gamu miini danu daa dox di xëy di gontu ba dem ndar tey ku jóg war wataaki gaali fiini la ne woon ndar ñëw mbàkkelee na fa njur bel buuse yi rey ndawal gi dootu nu buuni yile xiiwal ku seet lawam gi te sontoo tëraloo bàyyi faati ak may muuni yile xiiwal ku seet lawam gi te sontoo cëraloo bàyyi peeti ak may moone yile may doy na sépp góor ci bu farloo xeeti yóbbal dadaa defar aw yooni yile matloo kisum yaag yile taabal njegenaay taali làmp mbaj yu leene yaa ngi toog yaa ngi nu dendal danu daalal tagar gi tey bin biini darinaar yaa ngi toog yaa ngi nu dendal danu dalal tagar gi tey bin biini yaanu nandal ci koppi weer yi nga feeñal yaa di mbër yaanu tàggaleeg naan kooni yaanu miinal kafee ki kaasi ataaya yow sa ndox meenu tàggaleeg naan moone mile mbaani ku tonni ni wite sammoo war a kañ xu Bamba ku diine mburu maa jàpp waa ngi yaanu ko saafal boole na ak saw jigéeni xóorul xiini nan gërëm sayxu bàmba ahmada xawsi doga nag mbàkke bàlla nuy miskiini yaanu génnee ci néegi ndóol yanu bokkoon fam nu tàbbal ci néegi am ak diine yaanu génnee ci réer gu réew mi josaanoo fam nu tàbbal ci néegi xam ak diine yaanu génnee ci noone boole sunuy xol xar sunuy xol def ci cofeel ak miine yaanu wan yoon wu mag di aw ba yëram ndaw ndaw di màggal magam ñu rey ak noone yaa di sun xebla yaa nga féeru fi tuubaa doy nga nog aj dootun siyaara keneeni yaa di sun wirdi yaanu doy ci muxaddam yaa di sun ismulaahi doy nga nu yéene yaanu ximbee ca naari yaanu teree xam yaanu tee wàlli lamb niy yaa taxaw rey bi waajib bu du kon yow xobi póoni yaanu génnee ci néegi ganu donnoon maa ci raw man mi kànk ak cekkeeni yaane may may yu tax kajoor dinu raamal bu du waa penku duñ jar ñi ngi nuy kookal ni buur dinu neexal dinu waafal te noppi daa xëy miini ñi ngi nuy jox alal yi def ko idaaya di ko yónnee te noo fi doon miskiini ñi ngi nuy jox cerey layak yamu àndal dinu ceebal te noo fi doon nu gumueni ñi ngi nuy def waroomi mbóot dinu màggal dinu xejjal te noo fi doon ay seeni ñi ngi nuy jox lu xel dajul waane yaa tax danu daa ŋàbbi wattu tey yun yuuni ñi ngi nuy def waroomi mbóot dinu màggal dinu xejjal te noo fi doon ay seeni ñi ngi nuy jox lu xel dajul waande yaa tax danu daa ŋàbbi wattu tey yun yuuni yaanu génnee ci néegi ñax dinu taaxal danu daa seeluy foogi wal xiini yaanu génnee ci néegi ñax dinu taaxal danu daasee luy fuugi wal ciw yaa di jantum njolloor bi feeñ nga ci dunyaa bu du kon yow soo daan mu jam ak neeni yaa di bàyyu miskiin yi yow lanu def ndey yaanu nampal se ween a gën ay weeni yaanu daa jox ndigal lu ànd ak xiiwal daanu siimal cerey subaak joñ ngooni yaanu daa may naataanga yaa di ndoxum dex yaanu tàmmal di yoole junni jigéeni yaa di peppam wurus tool bu du sàppi ku la ngar dootu gàddu ay tax yéene yaa mi may may yu tax sariifi madiina dinu raamal te noofu daa raamaani yaa fi luumal fóorey kajoor ak i yaa fi jërfal xeram yi fab buur siini ña daa kaala ka woote wedam nañ ña daa wajji faa ka wér ngooni naari gànnaar yëngal na njañ yeni maalum ña yaroon ismulaahi dootuñu biini say maqaamaak say jagle kenn mënu koo xam say karaamaak say jéego kenn du ko séeni yor nga taajul kiraami mat nga boroomam xam nga xel mut diraaya am nga yaqiini mbari diiwaan tëggaale wuñ la ci géew bi nde dangaa daane mbari yewub nga fi diine yaa fa sax béjjani ñu rey ña te daanoo ku du yow daana daana yaa am diine yaa fi not ruu yu yàlla te xeexoo ku du yow daana tuuri dammaka ceene yaa fi mat xutbu mappi xawsu di xaalim di xadiimi rasuuli far di amiini yaa di maahin ndefar nga tooñ yanu tooñoon yaa di tëhëte yaa di yaay donay yaasiini yaa di maahin ndefar nga tooñ yanu tooñoon yaa di tëhëte yaay donay yaasiini yaay xabiibul ilaahi yaa di xariitam yaay siraatal ilaahi xam yooni yaa di misbaahu yaa di làmp bu dul fay yow sa leer gaa nga dox bawal jëm siini doga laa nabiya ba'da nabiyin nu ni ndax war ngaal buraaxi lamiini yaay donay Mustapha xayru samaanin yaa fi yor mbooti ahmadul balxiini sàkk ngay xut bu sàkki xawsu samaanin baarakallaahu doomi bàmba lamiini yaa fi nooyal te fas dewul jaasi xeexul lugg pëltaawu xeej naakuuni yaa fi faj aajo waajo ak si nga seexal yaa nu wammat jox yàlla ciy teggiini ñii nga jox wird ñii nga yéega ci baatin yoonu ñàkk ak ñaq ak bi saw yooni yaa nu wan sunna yornu yarnu te dóoroo yaanu royloo yonen ba far nanu caatum ak sasin la quartier ya booloo yor balak doom jëm dëru ngir fari diine ba ñu yegsee xam nañ ni yow doo fayantoo su la neexoon seen ruuya dem si jiini ndemalaakay badar yelim ba fa toogoon lu ñu noon seew am say ndigal ciy noone yow nga far jàpp yi gaaya ca baaxoon def ci lislaam yaa xóoti mbir doo cuune ba ñu delloo la doomi buur ya tasaaroo ña ca doon gërmi ñépp naa tuub leeni ca xatum alsasin la mbër ya ni janjang yaa ca ramloo mbaaxaane ak buur siini yële kàngam daw fekki ceerno biraahim yële kàngam di ñëw fi yow di la fóoni gelluwar yaa nga làmp boole fa njurbel yile xar baax na kun fa yakooni ku fi daa weddi diine nee ko fa waylun mbaa mu dem yër fii suuratil maahooni caxatum jam sa sin la buurub taraase seet si njurbel gaayam ya naa la amiini góoru waaloo ngi wal di sañ fa tuubaa ñala daa noonu tey ñi ngi aw yooni sayta gay war di sun liggéey ya ki ngonnal yow la nuy soxla woo ba duñu waxi neeni yow la nuy wër di waaja yow la nu taaroo sopp laa gën ci am murit ay leeni bamba yow say keraama kenn mënu koo xam nde ndoxum géej nuroowul ak moom teeni noo ngi lay ñaan yow bamba waaju la toppoon yal na yooloo fii suuratin wattiini noo ngi lay ñaan yow bamba bis bu nu faatoo ku xaman sayxu bamba déefu la ceene te malaaka mbugal ya buñ nu fatiisal def nu way weexi marke jabhiini yow ma tabiyat defal la siine wujuhun bu keroogee murit yi am lu ñu yéene yow ma na doxoo yëram nu kulla unaasin fam nu tabbal fii jannatil xuldiini bu nu dekkee ba jëm siraat nag nu wammat ndax nu far melax gu ciw xiini bu keroogee teral nu teeru nu ciy te nangul nuy jigéenu hóorul xiini nga la moo saafaral taxaw te bul wéy tee far julli waxtu waa nguy ngoone mbaa nga wax salli rabbi xayra salaatin bi salaamin nabiyil amiini mahaalin wa saabihi wa ak i doomam yi nuy defar fil xiini maha aalin wa saabihi wa xadiimin ak i doomam yi nuy defar fil xiini subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin bismillaahi rrahmaani rrahiim wa sallallaahu alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman ma jóg kañ waaja daa way gën ji yonnen ba yonnen fal ko muy xut bu boroomam li tax way wii wolof te waroon di yaaram dama nar jëngul xam boroomam ma kañ ko te way ko ndaxte mu dolli may may géwal sañ naa wëree luy kañ boroomam ma nettali fiy jaloore te solli fiy ndam te wax xar baax yu tax ngeen xam boroomam te xej ye yàlla fal xam nañ maqaamaam ca xar baax yaag ca may yaa xam boroomam ca wàlli yu yaag ca xew suya sax fa diiwaan ca xutbu ya ak ña daawiit ak boroomam ña yàlla ña xam ca baawoon ba tey kenn jëragul fa mu jaar boroomam te wax ji moo ko wax ba ko noon ya yóbbu ku diiŋat wax ji moo juuyoog boroomam te géej ga la làmbe yàlla ba fekk muy géej mu tànq ca leeri xëy bu ya naan boroomam ca géej ga la dàqe saytaane ki gaayam bu ñuy maaj muy taxaw faratay boroomam ca géej ga la moomi mbóotum kun ci baatin bu noon ba fa bee kanoo ni kun boroomam ca géej ga la bi xam-xam ba fa fi yor àlluway xalim boroomam ba àgg ci yàlla àgg ci ngën ji yonnen ñu sopp ko soppi léppam muy boroomam saxal foofee jihéeri bakkan ci ay at di boole tagg ak julleeg wéetal boroomam ba faf seey mel ni suukar far ci yoon di moom muy moom ci baatin cey boroomam ñu bokk ko fal ko ngërëm mu fab ñu womat luy jox ko mu jox boroomam di kenn ku ñépp xam foofee ci bëtin tubaab yay bañ sëriñ sa boroomam mu faf dib jant faf tiim jépp dunyaa di taalif téere yuy sellal boroomam malaaka seere pal ga mu am fa diiwaan mu fal ay xut buy dee yëg boroomam balaa la fa am ci peey aras ci bëtin ñu diisoo ak daam te mooy jeesi boroomam te mooy wuutaatu yonnen par ci kaw suuf di mbootum kun ci lépp lu soob boroomam mu laq ngërëm ci sëriñ tuubaa di maanaam dex ku dem duy ku soobu ni mes bu génnee xam boroomam ku soobu tewey taaw yoonam ya feesal ci ay leeram ba fab di duyal moroomam ku soobug dex na ndox dof bi yeewul te ndox lewat na tewex ci biiram ku soobug dex na ndox dof bi yeewul te ndox lewat na tewex ci biiram ku sàggan sànku fawu telab te doodu yi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 boroomam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba mu tax mu ër faratay boroomam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba mu tax mu ër faratay boroomam du déggum noot du mbaab téewul lu taw taw ak lu liw liw cey boroomam du tab jëbatiim du wuute musul di du gàppuru bis du wéeru jullil boroomam du tab jëbatiim du wuute musul di maamoom du gàppuru bis du wéeru jullik boroomam du yeexal wenn waxtu te mus la fay paat la koy wax raw na montar mooy boroomam du ñàkk ba tax mu bodd kuréel ya koy laaj du denc alal lu dul téerey boroomam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 dër ba ni këng nooy ba ni nepp ci wet te am njàmbaar gu tar te ragal boroomam wayaf ba ni toy diis ba ni gann ci wet lewet ba ni doom saf saf ak boroomam sawarte le fop te yaatu te xér te am ngor di tabbu du jeele am jox boroomam rafet jëf saf xoram du waxaate réewul bari teggiin ci kum gis ngir boroomam du xejjak seen du ay bokkam du jaamur ku ñëw mu teral di la nga xam boroomam du bodde du ñax du janni du xutti saatir dalay yaatal ëfal la nga mel ni doomam du màtte du jëw du xool lu warul te siisul du rommi du mer du xul ci lu dul boroomam du màtte du jëw du xool warul te fiisul du rommi du mer du xul ci lu dul boroomam du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo du dog war maaki bokkam baa boroomam du fàtte du fecci wëllëre mas la war nit du xàddi du naagu yërmande ngir boroomam du bew du bajantu day waaroo kawaare du jeng du fakki maasam ngir boroomam du reetaan nit du farfarloo du sob nit du yàqub der du tas nit ngir boroomam ndaxam ji waay ji koy yonnen la lamboo mëneefu la lim ngëneelam yéeg boroomam fu nuy raaseeti waajuy mel ni miibër wayaf na ca kaw te diis na ci biir boroomam fu nuy raaseeti jant bu dem ca njolloor te leeral yépp gox di kennul boroomam fu nuy raaseeti waajoo xam ni buy wax ku nekk di lox di làqu ku dul fu nuy raaseeti fëb bu jógaadu geesoo di romb dërëm ya jëm ci mbirum boroomam fu nuy raaseeti kuy fab alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam fu nuy raaseeti kuy gis ahlu badrin di ànd ak ñoom te dëkkaaleeg boroomam fu nuy raaseeti waajoo xam ni buy way arafu mu def araf di ca bég boroomam fu nuy raaseeti waajoo xam ni fu teew ku wopp mu faj ku dee mu yëgal boroomam ku bañ bii xut bu bay raasi yi moroomam du gis bu ni mel ci jamono yi boroomam gisee fu ko wan ca gaayaween ca baawan te xër nuy jubit du ci ñëw moroomam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 te sàkk ku làq njagleeg Siidi Muxtaar ki dem ba siyaare yonnen moo ki doomam te seexal kem li sayxi Bamba seexal te sellal seeni xol ba xam boroomam te sàkkal leeni mbooloo fa wuy jëf te tàggat leen ba duñ mën a mooy boroomam te kët na saxal liggéeyal ngir